بسم الإله ينور السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوكي جيلو جيتدي اك بوكي طالب موردي ني توك سي كانمو كليفه بو تدي دي سيرين توا شيخ محمود منتخا ديكو نيانال مو ياغ في لول تا اندك وير با يينا جوري جيم ام الاسلام ام كو ليغي سيرين توا suñu yoon may ko kàttan ak wér ba lépp mu mottali ko nu kawe njortam ñu toog fii nag fa yéene jotale ay kàddu yu néew di jéem a fexe ba ni mu ko santaane donte suñu làmmee lott na ci man koo jotali ñu jéem ci ba fa suñ kem kàttan ñu jéem ko mottali ci yéene kon ci ndigalu sëriñ bi ndax wax ci kanamu sëriñ bi dafa diis ndax koo xam jataay bi mu toogee xam li mu doon boo yëkkati ci turam faw mu diis yow kon ñi mi ngi nuyu bokk jullit yëpp di nuyu bokk réew mi di nuyu bokk àdduna si di leen ndokkeel ci weeru tedd wi di weeru koor nga xam ne ñëpp xam nañ yitte ak positif bi nga xam ne def na ko ci ngir fas yéene ko dundale ni ko lislaam santaane dàkk ci ni ko Sëriñ Tuubaa dundale mu yóbbante ma nag ay kàddu jëme ko ci taalibe bi jul nga xam ne ñoom la sañee digal sañ leen a tere kon kàddu yi mu ngi jëm ci bokki taalib yi murid ndax ñoom loolu rek li seq ñoom di ko jëmalee ci mboolem mbokku jullit boo xam ne mi ma yàq yaqbalu nasihata min axihi muslim kon mooy kàddu yi nga xam ne jëme na ko ci yéen kàddu yi nag mooy ginnaaw bu mu leen sante ci li weesu lépp mu am tuuti ay leeral yoo xam ne doo ko fas yéenee jëme ci bokk taalibe yi ngir ñëpp maase ci xam ab tolluwaay ak fi mu toll ak fi nga xam ne fi la nekk loolu itam dafa war a leer ci ñëpp ndax ku fi nekkal Serigne Touba li la war mooy santaane digle ak tere loolu rek nga seq ak nit ñi taalibe itam li ñu seq ak yow mooy sami'na wa ata'na loolu rek lay lañ am seen digg ñoom mooy lépp loo xam ne Serigne bi santaane na ko rek boobaa amatul li seetaan la ma kaana wa ma kaana li muminin wala muminatin iza qadallahu wa rasuluhu amran an takuna lahum al xiyaratu min amrihim kon lépp lu mu santaan rek jëfi ndigal lañ ci war a def santaane bi nag mooy leeral rek moom fi mu toll ngir xam ne lépp loo xam ne dégg na ko muy loo xam ne war naa indi ay rëngi-rëngi war a indi sensantu ci biir réew wala adduna si fam ci nekk ak fam bëgg ñëpp ne fa nee na moom fi mu nekk fii la yéen bokk julli yëpp ne fa fii la yéen bokk taal bi yëpp ne fa mooy ñëpp maase ca xam ne lépp loo xam ne luy indi fitna la ci biir réew mi na ko ñëpp wattandiku te sax ci jàmm te xam ne sëriñ Touba ci loolu la nekkoon ci lool la loolu santaane woon ndax lu ne mas lu ne def nañ ko ko ba tàyyi waaye lu ñu ko mas a defit li muy wax mooy jégal naa leen kon Serigne tuwa na xam ne du ku ñuy xoolool du ku ñuy xeexal li nga xam ne nag mooy li nga xam ne bëgg na ñëpp xam ko muy lu war a leer ci bokk juri bi nee na daa bëgg ñëpp maase ci xam ne nit balaa doon ab taalibe day doonu jullit ba noppi nee kon li ñu war a njëkk a lu mooy fexe ba sunu njullit ba sunu njullit wér ba sunu njullit wéree suñu taalibe dooru mën a wér waaye nee nit du du mën a doonub taalibe te doonutub jullit ba noppi kon nag nee na fii lislaam toll ci ràgg nee na ñun tëluñu lenn lu weesu fexe ba lislaam jëpp nekk yoon say waaye lépp loo xam ne lu koy xajjal neen moom tëlu loolu te fas yéene na bëgg taalibe yëpp maase ci nekk la ko foofa xam ne daal eh, li war a nekk yiteem yite ñëpp mooy fexe ba lislaam ji ni ko rasulullahi digle woon nga xam ne leer na nañ ñi nee na amul lenn lu ci lënt nee lu ci lënt rek ci doomu aadama la waaye suñu borom li mu santaane wàcce ko ci alxuraan lenn lu lënt néew ci kon nag na ñëm na ñëpp maase ci xam ne ndegam men lënt amul nag kon li ñu war a def góorgóorlu mooy fexe ba góor góorlu ci lislaam ji wér taalibi gi wér Serigne Touba itam ñu xam ne dafa doon rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam doon gi mu doon rasulullahi sallallahu alayhi wa moo tax itam bañ na ko ba dafa tudde boppam xaadimu rasul xaadimu rasul nag mooy jëw nit ñi rasulullahi sallallahu alayhi wa kon lépp tàbbi ci biiram kon mboolem tarixa yëpp itam eh, na ko sëriñ bi daa santaane ku ne xam ne ne Serigne Touba daana joxe wérdu xaadir daana joxe wérdu tijaan ak yi ak yeneen yi ci des yëpp kon loolu lim ci jëf wax ko ci. laaj yi nga xam ne gouverneur général laajoon na ko ko itam ne ko ñan ñoo yoonu murit fu yoonu murit juddoo euh, fan mooy barabam lépp géntoon lislaam daa waxoon ne képp kuy wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam euh, na nga xam ne ci ak njabootam nga bokk nee na fépp fu julli nekk itam euh, julli ne rek fala ñoo di kon Sëriñ wutu wutu doon ak xàjjale ci diggam ak kenn koo xam ne mbokkum jullitam nga ci loolu itam fonk gi mu fonkoon rasulullahi sallallahu moo tax képp koo xam ne fonk nga Serigne Touba itam na nga xam ne boo bokk ci njabootu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam rek bokk nga ci njabootu Serigne Touba waaye nag boo dugg ci njabootu rasulullahi wala eh, amoo xamoo lay rasulullahi sallallahu loolu doo maa tàbbi ci biir ndax Serigne Touba loolu moo doo doonoon muhimmam kon loolu na ko ñëpp xam médaille bi nga xam ne bëggoon nañ ko ko takkal itam la taxoon sëriñ bi gànt ko dafa waxoon ne. médaille bu ñu ko ko takkalee loolu day firndeel ne ak xajal ko dem ci biir islam kon nag sëriñ bi nee na loolu kon nee na na ko kilifaam yu jëkkee defoon ndax sëriñ Tuubaa ko santaane woon kooku fi mas a nekkal ku ne itam ci lii nga nekk xam ngeen ne 1979 80 bi nga xamee ne yu mel nii xewoon na te booba sëriñ Abdul Ahad Mbàkke moo fi nekkoon euh, sëriñ Moustapha Bassirou ñëw àndoon koog moom ci xew-xew bu meloon nii Cheikh Abdoul Ahad Mbacké taxawaay bu mel nii la ci amoon mooy xamle ne Sëriñ Tuubaa du ku ñuy xoolal du ku ñuy xeexal ku ñuy gëm la ku ñuy toppal ku ñuy yaakaar la nee na kon moom itam na ngeen xam ne foofa rek ca la nekk te fa siinoo ko wàcc. nee na bu dee ci diggam ak bokk julli itam mooy al uxuwatul islamique yi itam nee na da koy fetli ndax loolu la fekkoon rawatina nag ak Cheikh Sidi Mokhtar mi nga xam ne mooy fa mujj nekk ci xalifa Sëriñ Tuubaa nee na fa mu ci nekkoon rek. ci yeesal ko ci digg ak bokk jullit yi sëriñ bi nee na nee na loola képp la fas yéenee wéyal ci mboolem boori kër këri diine yëpp fas yéene lépp àndandoo nekk benn nekk wenn say lépp lu ñu def euh, mu mu mu dëppoog lépp lu ñu def tam mu dëppoog loo xam ne genn lu nuroo ak joo du ci am fa soose rek la fas yéene te tàngam nee na kon mu ngi ñaanal Cheikh Sidou Moussa suñu borom dolli ay leen saa suñu ci barkeem kon nañ xam ne yoon wi nga xam ne waxoon na ko muy ñëpp dégg ko nee foofu rek la ci nekk te loolu la fas yéene yeesal li ci dolli ko waat nag mooy jëm ci taalibe Serigne Touba sëriñ Serigne bi nee na mi nga xamante taalibe yëpp na lim yéene boppam rek la yéene te moom wax na boppam fi mu jëm wax na it ni fas yéene doxalee dara desu ji nee nag nañ xam ne yoonu wii di yoonu Serigne Touba Serigne ko sanc ci yar ak i teggin nee na kon nag képp koo xam ne yaakaar nga Serigne Touba. na nga xam ne lépp looy jëfal Sëriñ Tuubaa yar ak i teggin moo ci war a jiitu kon nee na loolu mi ngi koy digal taalibe yëpp ne ñëpp xam ne buñ tënkoo ci ndigal Sëriñ Tuubaa euh, ne ne ci yar ak i sax ci taalibe mboolem liñ bëgg danañ ko bu fekkente ne nag wàcc nañ ko nag boobaa nañ xam ne lu leen ci daal ñoo ko ak seen bopp kon nag nee na mi ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan suñu borom dolli jàmm ci réew mi mboole xooli jullit yëpp. mboolem yi nga xam ne ñooy kër lislaam yi ci biir réew mi itam suñu borom gën leen a boole ndax Sëriñ Tuubaa waxoon na ne yaar rek a fi nekk innamal mu'minuuna ixwatun mu ne ak tey la inna shaytaana lakum aduwwun mu ne ak nax la mu ne tey gi ci innamal mu'minuuna ixwatun nag innama mu ne tey gi ci innamal mu'minuuna ixwatun nag ndax gi ci inna innama inna shaytaana lakum aduwwun mënu ko yàq kon nag nee na nañ xam ne eh, lii di këri lislaam yi eh, defar ci ba jëm cee defar rek moo ci am waaye yàq ci kenn mënu ko ndax lu leen jiitu la te kilifa yi fi nekkoon fàggu nañ ko ba noppi kon nag moom ci liggéeyam ak li mu fas yéene liggéeyal Serigne Touba fas na ko yéene ànd ak bokku jullit yi fas ko yéene ànd ak bokku taalibe te teg teg ko nag lépp nag ci sunna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam teg ko ci ndenkaay na Serigne te fasu ko fasu ko yéene wàcc te fasu fasu ci dugal dara fasu ci yéene génn lenn loo xam ne lu bokk lu ci Serigne Touba gé dugaloon la wala loo xam ne Serigne Touba bëggatoo mu tàbbi ci biir kon nag euh, ngir bañ guddal rek sëriñ bi nee mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. bismil ilaahi yan